ñu suivre ci Leewtoo nañ leen ni ngeen ko xamee 100 pour cent làmb Talla Ndiaye la ak Babacar tey ànd ak yàgg mar mooy photo foto yu leer yi Modou Mané dawal dawal bu wóor bi macha allah tey nag dañoo xëy ak benn information si làmb si combat Lac de Guiers 2 ak Boy Niang ñu xëy jàng ci ay yëglikaay yu bari ñu ne CNG génne a verdict bi ba jox na Lac de Guiers numéro 2 ndamam ginnaaw recours yu ñu dugaloon ñoom ñaari mbër yëpp ku ne réclamé ndam léegi nag bëgg leer moo tax ñu bëgg a dugg fii. wëri mbër mi ndax loolu moom miñ na jox nañ ko ndam est ce que noonu la demee Talla Ndiaye wala demewul noonu ndax jot na ko wala boo amee ndam naka la amee ndam li nañ dem suma jumul fii may séen ni kër Lac de Guiers toog si banc bi tey moom ñu ngi ci mbedd mi Talla mais maa lay bëggee mbër waaw ñu ngi doole bëggee Babacar ci loo ne am nga jàmm waaw sant yàlla ak muñ ak moytu sant yàlla ak muñ ak moytu nee nga da kontaan de lan moo la kontaan loo tey ah nekk ak samay xarit rek loolu ak mbégte mais leneen ci. comme nan. ah li ci parce que dañoo xëy dégg parce que ñun tamit dañoo am lu ñu xam dañoo xëy dégg ko te dañoo bëgg mu leer dañoo xëy jàng ci yëglekaay yi journaux yi maanaam ñu ne Lac de Guiers bi génne na verdict ku moom nga fa dugal na dëkk que yow yaa daan Boy Niang confirmé nañ ko ñu ñëw laaj si la ndax yow loolu dégg nga ko wala notifié nañ la ko wala noo ko déggee. waaw sant yàlla dégg naa ko. dégg naa ko woo nañ ma wax na ma ko. ñu ne ma mu mujj na génne ndam li ñu ci sant yàlla baax a baax fi mu doon neexee nag moom mooy ca biir géew ga mais comme yàlla ni la ko tuddee kenn mënu si dara jox nañ ñu ko fans yi ñu ngi koy féete mais la dëgër bokk ci ñi koy féete waaw. léegi balaa ñuy dem ci féete bi nam buñ koy joxe ci li ñu xam dañ koy notifier manager mu indi ko wane na yow confirmer nañ ne la nga defoon fii la mujje est-ce que loolu yow da nga jot kayit bu koy dëggal wala wax ji nii rek nga jot ci journaux yeeg nit ñi. non si jot nañ ci. jot ngeen kayit bi pénal mu ngi nag léegi loolu noo koy dundee. waaw mais sant yàlla rek mooy li may faral di wax rek bëri nañ balaa mu doon gën a neex ndam la na ñu joxoon ñu ko ci biir géew mais nii la ko yàlla tuddee kenn mënu si dara am ci kontante mais nekkul kontante boo xam ne dina tax ñu naan lii kontante dëgg la waaw. mais ku bëri am ndam dugal sa recours. nga ne ñu jox la ndam tey nga ne doo doo ko kon loolu du nekk pour pourquoi du nekk contente. ma ci kontaan parce que nekkul combat buy tax ma ne lii ma ci kontaan ku ma ma xoolaat. xoolaat yow mbër mu toll ni booy ñaa di mën a bëreeg comme li nit wax nga bëreeg moom ba temps ba jeex ñu ne mat si niil la ngeen dugal recours nga jot sa ndam nga ne doo ko fi doo doo ko savouré. non du ma ko savouré de man li tax may savouré dëgg ba may kontaan dëgg dëgg dëgg la ma sol mbaxane roi des arènes. loolu xeeb booy ñaa la wala lan la. non c'est pas question de xeeb booy ñaa booy ñaa ko au contraire moom moo xeeboon la déggee parce que moo fi wax la yëpp ne curuxu caraxa xoma caraxa caraxa xoma lan noonu lu ñuy wax rek na leer nañ parce que làmb kese lañ fi seetaan léegi sama naat ngi ni ñëw na ne léegi confirmé nañ ko loolu moom saa bu doon loo déggoon la kon daa dëgg am na léegi. ah moom laa la wax léegi léegi kat xam lépp lu ma wax lay leer ne wala père Ali récupéré na ko. mu ngi ñëw ci yoon bi même pas deux minutes sax mu yegg si. bi mu ngi xam nga la jox nañ ñu ndam li. mais dëgëraayu combat parce que man fa faw ñu des fi dëgëraayu combat bi parce que booy ña ngit daa mel ni donte comme ni nga wax yow waaye itam dafa mel ni est ce que mënoon nga koo def li nga ko maanaam ñëw jaar ci kawam jàll jàll jàll noonu deme est ce que loolu mënoon nga jafewu kon ci yow kera mooy li may faral di wax rek booy ñaag xanaa amul ay mboq nag ay mboq am na ko mhm. loolu moo tax affaire bi dëgër. non c'est pas question de bi dëgër xam la dëgër de képp kuy bëreeg moom bu ko dallu moom du am ci loola neex. waaw dafa nekk loo xamante la dëgër de kuy bëreeg moom il faut <laughs> nga dal. waaw boo dalul moom di nga am loolu naqari. moom daa dalul. dalul bés boobu dalul. site ba muy am man maa ko créé. waaw site ba muy am man maa ko créé. na leen kii daanu na. wallaahi ar ba mu dawee laal sama ndig ginnaaw gi. nga xam ne sit am na en plus avance foofu sax ba mu dafa teg kii ma ko balaa foofu noonu moom teg na hanche. bi ngay recours loo bind maanaam hanche nga bind wala carte appui loo def. lépp laa bind lépp laa bind dara. Ah. et puis bi ngay recours itam xalaatoon nga ne sa ndam da nga ciy jot. non xamoon naa ko man xam naa ne damay am ndam de parce que gis na àdduna même Pikine sax xam nañ ne man am naa ndam booy ñaakay moo doon bañantu ak papaam te ñoom ñu ngi mel dañuy ay sportif waaye dañuy face à face bi dama di faral leen di wax ne leen su ma ñëw dinaa dama leen koy teel wax indaale sama casque. parce que wóoru ku ko daan dalee dóor gourdin. yooyu itam bàyyil mooy lan. wóoru non gourdin am. wóoru man xam na li man bëgguñu defar ñoom du ñooy sportif li buñ ko waxoon bu yàgg jeex na kon nit ñi bëri dañ koy naw ci lu bari mais mu xaar du wax ne bañu nee man maa def kàttapi man. yow da nga waaw ñoom dañ doon réclamer victoire tam parce que da nga def kàttapi ban kàpp laa def. bi ngeen di jóg defoo kàttapi. xanaa nag gars yi seen nit yi man xanaa boo nee naa ne sama droite fu mu jàpp dagg rek moo ko fay jëlee sama loxo dóor fu mu jàpp dëgg lu ko fay jëlee du yomb de. mais su arbitre bi bàyyi woon foofu jël bi dina gën a leer comme dina la daan jël bu leer daan ko jël bu leer. arbitre c'est le maître du terrain. terrain. kon doog ba mu sifflé ñëw dal laal sama digg ginnaaw gi. Ah, laa ne kon instant bi ni jeex na. am na ñu lay jëwee tamit ne Lac de Guiers 2 du bëre maanaam bu ñëwee ci combat day déglu rek day déglu day déglu loolu lan la. Ah, déglu moom tax am ndam yi yëpp de déglu moo tax ma am ndam yi yëpp waaw. dégloo la ko may. may ndam lii yëpp. ku ci déglu am jël bu ñaaw. ci dégluwul ku ci dégluwul am jël bu ñaaw lu leer laa la wax. man sa am na ko combat yoo xam ne bi ngay bi ngay gën a nekk xale dañ daan gis danga daan ñëw songu dem dem sa yoon. waaw boobu fougue de jeunesse la woon moment boobu bëggoon nañu wane suñu bopp bëggoon nañ génn mais boo demee ba nga xam ne am na mbooloo mu topp sa ginnaaw da ngay dal dal dafa ba ngay soog a génn yow da nga doon wane sa bopp lépp pour kut ko kut nit ñëpp xam na ne kii Babacar la waaw wala déet. non man moom waxal rek yow yaay. da nga ànd ak dal ne xaaral ma ànd ak dal comme gars yaa ngi may déglu bugguma juum ci dara bugguma juum ci yenn paroles yi bugguma juum ci yenn yi noonu la làmb demee nag. loolu tax ngay def li moo tax lépp lu may def dama ciy ànd ak dal na gars yi xam loolu képp ku ci lekk sama avance boo dalu ma daan la jël bu rëy. Boy Niang loo koy wax. Boy Niang mu doon sportif sportif ci doomu aadama dafa baax nga doon sportif. Boy parce que tey mënuma consevoir que kat yow mu yow xam nga ne yow daanu nga moom xam na loolu papam xam na loolu kon donc ñoom ñu retourné encore di waxu genre wax yoo xamante ne ay li papa moom damay ñaawlu ay façon de parler kilifa du def noonu. waaw euh, comme ndam am na nag la comme jox nañ leen ndam confirmé nañ ko pour man est-ce que du du non a rafetaay bi du gën actuellement nii. instant bii il faut ma wax leen li nga xam moom moom pour ëllëg moom moo tax kilifa du boo doonee kilifa da ngay wax wax gu rafet. xam nga la ñëpp ñu nekk ci làmb ñëpp say doom lañ mais wax gu rafet dafa baax ci doomu aadama maa ngi koy ñaawloo trop di papa dégul di waxee suñu papal nag ñun ñëpp dañ koy jox cër du ma ko mës a manque de respect. Tapha Gueye daa jàppale si combat bi. Père Tapha Gueye wallaahi Père Tapha Gueye jàppale wu ma. jàppale wu la barki yonent yàlla Mohamed Père Tapha Gueye waxuma sax nii ngay daane wal nii ngay def Tapha Gueye fenn laa ko mës gis moom mooy suñu dernier plateau bi je crois bien TFM ah foofu laa ko gis jeex na. mais li ñuy accuser Pierre Tapha Guèye li ñuy accuser Baboy yëpp dara amu ci moom nag li mu seq ak Pierre de bu fekkee dafa seq ak Pierre de Gaulle loolu Pierre de Gaulle wax loolu moom ak Pierre de Gaulle ça ne me concerne pas man li ma concerne moom mooy bës ba yàlla may na ma ndam déposé naa recours suñu kilifa yi teg nañ ci yoon jox nañu papier jeex na. léegi foo jëm. ah fi ma jëm kay moom nit ñi xam nañ ko. yaa ko gën a xam nag. ma leen may dara dimanche. ñan nga dul may dara ñoo gën a xam loolu. ah ñii buntu ñu tëlee buñ ma gisee stade moom dañu xam ne ñoom ñaar ma fa indi. mbaaru buñ dof dof loo nga ngemb ni ñii ñoom ñii ñëw bëre si bëre si comme ñoom. déedéet moom xam moom bu neexee yàlla suñu borom maa ngi stade taxaw di leen xaar. sa digganteeg Mourou dama si tawem bu defee naan. wax mu ngi ci moom. Ah. te gars yi ba léegi gëmuñu dafa sob. dafa sob trop sax waaye yéen xam moom xam na loolu. mu ak a sob da ngaa sob sob sob ba sob fa dara nekkul ama itam de yaakaar na am na fu ngeen jaar ñaari yoon combat ngeen combat bu metti mat si niil ngeen ñëwaat mu tibb sa tànk dëj la waaw waaw kooku moom mooy li may faral di wax rek man dama nekk nit koo xam ne dëgg rek laay wax je pièce bien même dëgg rek laay wax ama naanaanu làmb la mu ma jiitu ci làmb kon bu ma daanee damay accepté na daan na ma waa bii nañ xam ne ne mooy loolu kañu war a yëkkati yëkkati ñu ko de kan la tey boo xoolee sama parcours ñu ma daan yëpp Ama Baldé daal na leen

d'accord na daan na Ndour sax daan na Tafatine ah daan na Zos man ñett ñu ñu daan nañu Zos daanul kii Boy Niang waaye Boy Niang def fi dara na dem seeti leneen. waaw loolu moom yow ak waa Pikine ñun loolu duñ ci dugg l'essentiel que daal. l'essentiel que daal yow xanaa yow ni ma la dégg yow daa mel ni fi da nga bëgg suubu ci am mbiri Ama de. non Ama moom dama bëri moom ndax sama rakk la loolu moom bu na ñi sonal sax seen bopp ndax waxu waajuram ba léegi moom moo nekk sama xol. wallahi même bu ko bëggoon. même bu ko bëggoon man bëri ma am ndax am dama am kilifa lu mu bon bon bon jox naa cër yaayam jox naa cër magam yi muy grand Zil Balde suñu grand suñu lépp maa ngi koy nuyu en passage grand Ibu maa koy nuyu en passage maa ngi leen sant di leen gërëm di la ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan yaayam nag maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam mais boo ñaan dafa fi xeer na nit ñi bàyyi man ma amoon envie jox ko def fi dara moo tax nga jël ko nag bu defe kon dara du parce que nag laaj c'est la première fois ci li ñu gis muy doog defet kon Guédiawaye su fi la daal waaw mais nag dafa fi dara def fi dara da nga lekk avance am ma expliqué lamiñam bu rëy bi mu tongal tongal ko la déggee numéro moom moo tax ma jël ko da ngeen waroon a bëre jamono jooju parce que daa daan saraka saa Thiès waaye yow la fi def xamoo lim fi def la fi daan saa Thiès du mbër Sadji Kees ñun fi ñu toll tolloogu fa. guy gi du mbër mu mag. déggu ma la est-ce que ñun fi ñu toll ñooñu toll nañ fa ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ ñooñu ñëpp ay ndaanaan ñoom ñëpp ñu ngi ci cour des grands mais déggu ma la boo ñaa ña ma war a bëree bëriloo ñooñu dafa tëb étape bi da ngeen koy nangu. moom duñu amuñu lu ñuy nangu ñu ñan la war a bëree waxal ñu war a bëree. dafa ñan la war a bëree. ñoom yi ki ni si ñoom ñi muy tëb ñooñu ñëpp dafa war a bëree ak ñoom ah dafa bëri ñoom tafaat ñooñu ñëpp. ay Tafatin mel yow la war a bëree. kat Tafatin. tax sirib maa ngi lay nuyu ah. bu ko ci delloowaat. daa soxor. mais boobu dama gis nga songu. kan ak dafaatin da ngaa daw tibb tànkam. Ah, parce que dafa dafa juum. ci taxawaay bi wala. waaw man am na nooy juumee rek ma jàll. ah booy ñang nag daa mel ni moom itam juum te loolu mënu kon ko koo def loo de ndax daa mel ni ku ferme taxawaayam. déedéet boo ñaa déggul ma dafa cee am kilifa ci benn côté bi. ba mu loon kilifa bu déglu woon ko yenn conseil yi kon daan naa ko jëli bu gaaw. dégg naa gars yi nañ di ko jëli moom des fois boo ko pëlee yóbbu ko ndox ma. li ma la wax moo tax daf cee dal. combat bi daf cee nante la nag. Ah. du ngaaka nag. Ah. Ah, géwél la nante la. <laughs> mais léegi après ndam li nag léegi nee nga di nga ñëw dimanche stade pour dëkk Modou ak Eumeu seen dama leen maa ngi fa taxaw te ñoom xam nañ bu baax ne ne boobu noonu. maa ngi fa taxaw ñoom ñaar ku ci daan. yaa Gris Bordeaux ku dàq xeex. Gris Bordeaux moo dàq xeex. yéen ñaar. waaw li muy door ci ay crochet cheville rek crochet cheville. donc gannaaw moo dàq yéen ñaar du ngeen ne rënkum may ñu ko fii ci stade bi. rënkum maa moom. waaw xeex dem leen ngeen laaj ko. yow pare nga. man pare naa pour mbër yëpp. Gris Bordeaux sax seen xeex. suñu xeex maa ngi moom. ndax pare nga ngir ngi seen xeex. nga bàyyi taalibe Cheikh boobu. taalibe Cheikh moom waaw ñu ngi koy nuyu di ko jaar mais dañu gars dañ ne yéen ñaar ay xeexkat ngeen. waaw bu neex la de. yéen ñaar xanaa. Ah. waaw dana neex de. torop sax. Reug Reug mi dugg si ci biñ ne dugg si ña seen bi nu ngeen ko gisee. kuy Reug Reug. bu caaroo xamoo ko. ah ok booy Reug Reug. ay lak mbaa doo xeeb xel mu lak sa dàgga. doo xeeb mu Reug Reug de. ah damaa dégg nga ne kuy Reug Reug. na góorgóorlu na góorgóorlu champion la mu ngi prouvé nag. a góorgóorlu parce que boo bëggee bëreeg say grand frère moom il faut nga gën a góorgóorluwaat bul nangu mukk ku la jël teg la ci yoon boo xamante ne eggagoo fa jaaral fi nga war a jaar boo jaaree ci yoon bi rek di nga yegg si waaw Reug Reug ndaanaan la kenn du wax du ndaanaan mu ngi prouvé nag mu ngi ñëw mais yegg seegul waaw na gën a góorgóorluwaat bu wane waatee boppam rek di gis mu dem waaw. ana Omar Sakho Balla Gaye mu ngi fi bëgg ceeb. Ah, daa bëgg ceeb. torop lekk rek lay def. booy ñag ne nag am na kaasu fonde bu des ci kër de moom la ko fa wàccal na ko jël si wala ñu yóbbu ko. kan loolu de la wax. waaw booy moom mënul jël kaasu fonde bi amul suukar yi mu naan ko. yi amul suukar yi mu def amul suukar na ko naan mu teg fa jiinam dina ko naan ba biir bi fees dell moom xam na loolu sax. ana liiru kombe bu sa fonde ba amul suukar bii nga bëgg a jox nit ñi duñ ko naan. ana liiru. ah grand liiroo ngi fi de suñu grand bu baax a ngi noonu. waaw ah, di sonn suñuy bës nag te mënuñu ko fay loolu moo ma jaaxal day sonn suñu bës te mënuñu ko fay mais yàlla lañ koy bàyyeel yàlla na ko yàlla fay xolam waaw am na suñu grand boo xamante day sonn samay mbir nag samay bagage mais grand Gambien mu ngi ba États-Unis New York maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam jàppale bi may jàppale sama combat bi daf cee sonn fu nekk dugg na fa waaw kon jëmm jooju noonu dañ koy bàyyi yàlla grand Diouf sama grand Abdou juuf sama kilifa sama lépp maa ngi koy ziar di ko béggee waaw. di Aziz Ndiaye dañoo sot ci combat bi. waaw waay waay waay su ma bëggoon suñ nga xam ne dinaa jël. les géej waay moo leen ñor. buñ ma sotaloon nga xam ne lépp dëgg la kon boo ñaar du sax doy xaaj ñu ci bëj dugal seen loxo nag taxal nañ fi Baboy taxal lañ fi Père Moussa man dama jommi man ci waa Pikine. looy tàggoo. li tàggoo moom mooy leen di santaat waa géejewaay bu baax a baax autorité géejewaay gi waaw suñu njiit suñu kilifa Alioune Sall drapeau bi dinañ ko indil nag jox ko ndax drapeau la moom moo ko moom waaw. drapeau bi kañ ko kañ nga ko yóbbu Alioune su ma ko yóbbu doo dem. dinaa dem moom. naa la force su damay dem. doo dem de. damay dem Thialine Sall. dem de ah, waaw baax na. mooy dem taala day dem yàgg day dem maane day. bon oh, waaw kon jéem a kon ba gars yi nañ préparé incha allah <laughs> buñ jëlee ci buñ jëlee ci coupe bi. bu ñu dem ñu wax la ko. nga xam dañuy demandoo. waaw indi yóbbul ko kubam. faaw ñu gis meeru Géejawaay. waaw il faut ñu gis ko. waaw ñu ngi koy ziar di ziar waa Géejawaay gi yëpp ah mbëru Géejawaay yëpp. Mhm. bàyyiwuma kenn su ma limee damay juma maa ngi ziar mbëru Géejawaay yëpp a Seye numéro 2 maa ngi lay bëggee guy gi maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla la yàlla fay sa xol Alioune Seye moom su may nekk fii rek di ko tagg moom fii mm-hmm. tamit ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye numéro 2 lim ci jàppee moom macha allah yàlla ko yàlla fay xolam. saa sama rak xol maa ngi lay bëggee yow moom du ma nekk fii di la wax dara loolu yàlla yàlla rek laa lay bàyyal saa kees suba ak ngoon guddeeg bëjëg entraînement yi bàyyiwoo dara kon donc jëmm jooju dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla fay xolam. ikir waalo nag waalo. waalo maa ngi koy maa ngi leen sant waa waalo maa leen sant di leen gërëm Pambaay sama doom ndey Pambaay yal na la yàlla may ndam waaye Elton les deux ah sama gars yi bi nga daa ñëpp ah bàyyiwuma kenn. waaw na soxna Borghi chaque ma laaj. mu ngi fi mu ngi fi mu ngi si jàmm. maa ngi koy nuyu en passage di ko wax na xoolal namm naa la maa ngi ñëw. nu mu noo ko tuddee moom. ah bébé tuuti. bébé tuuti. daal <laughs> bébé tuuti kon xanaa mën naa xaar guro gi léegi moom. nga ne guro koy yëpp. non moom kay mu ngi fii jot na ci pare yéen kay toog leen xaar rek. wax lii de. moo senegal nañu xam ne am naa soxna ba pare moom sama sama sama sama xol maa ngi lay nuyu dama la bëgg ah. wasalaam sa gars yi dinañ dangay dangay tooñ dangay naxee rek ñenn ñoo xam ne damay naxee. ñoom xam nañ dara de. Ah. mais dañuy siisu quoi. dem nga fa bi nga bëreeg léegi ba pare. déet defal ndànk recours bi génnagul woon recours bi moo génnagul woon. tey laay lii la la tey kay maa ngi fa. ngay reere ji moo. nee na ma papa toogal naa la ginnaaw contre cour bi génn ko maa gis ngeen ko ñun ci leer la ñuy dox yàlla dox dogal na biñ koy jël di waxtaan ak moom ci la menace am seen CNG indi recours bi ngeen gis recours bi ñu confirmer ne ko kon moom daan na Boy Niang kon loolu leer naññ la di ko féliciter di encourager Boy Niang sport noonu la kenn ci ñoom ñaar pertu ay doomi Sénégal lañ mais lépp daal na rafet rek jaar ci cadre sport bég ci yéen.